ma xool la de <laughs> ci mes bu mag bi nga xamante ni moo doxoon ci diggante Franc ak Sokh moo kii xale boo nga xamante ni bëri na xale bi nga xamante ni musul daanu keroog moo ko jox premier défaite am muy Ibou Afia ma woo ko mu dugg si mu dugg si toog ñu waxtaan Ibou ate ñëwoon jëleen ko bi ci loo ne bismillah maa ngi sant yàlla mais tey danga nga da nga da nga da nga de xanaa da mer non même euh, yokkal baat bi tuuti. nice. Euh, ma woo beneen mbër bi nga xamante ni moom tamit euh, combat bi mujj dafa daanu ci digganteem ak fils de Lirou muy Feugeula bu Ngor ma woo ko mu doog dugg si Feugeula ñëwal. Feugeula nuyu naa la. ñu lay fay. ci loone sant sëñ Cheikh Fall bu wér. Euh, foo jógee sama Sénégal da lan lan la ñu war a football sax ñun. Hmm. lan ñu war a football équipe lan la war a football. qualification wala lan la. coupe du monde coupe du monde bi kañ la. <laughs> ça va da ko teel anticipé di fëgg la ci loole ñu ngi sant sëñ bi bu wér. Hmm, ana waa Ngor. ñoo fa lébu yi. Hmm. waaw. Euh, ana ana ana ana Siteu. mbër mu nga fa. Ah, moo ngi ci jàmm bu baax maa ngi koy nuyu bu baax a baax. billaay gis ngeen mbokk yi tey ñoom ñaar laa dalaloon bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb bëgg waxtaan ak ñoom ci seen carrière ndax euh, ñoom ñaa ay xale yoo xam te bu ñu jógee gox bi ñu dëkk gox bi ñu dëkk du leen bàyyi ñu dem yoon kas da leen gunge euh, jàppale leen ci bés bi ñu jëm Ibou Ibou ci loone ay sant bu baax. yaa ngi doxal. alhamdulilah. mais Ibou da man man Ibou bi may gis ak Ibou bii du benn lu waral lool. non man nii laa mel da nga xaw a calme quoi la da ngaa man nii laa mel. Hmm. kon est-ce nekkul li moo tax mbëy ñeme na parce que man bi nga bëgg léegi mbër yi ma woon ne ma dañoo bëgg a bëgg ak Ibou dafa bëri trop. waaw loolu ñoom la rek mais man nii laa mel quoi. Hmm. pour ñi nga xam te ne xamuñu Ibou Afé Ibou Afé moo ngi moo ci ñaata combat. waaw man maa ngi ci sept combat. ñaata victoire. cinq victoire deux défaites. deux défaites kan la daan. Bécaye moo ma daan ak Aliou Fatfat. Bécaye ak Aliou Fatfat ok euh, sa dañoo combat nga gis la nga jo gëjoon sa dernier combat nga ñëw jël ki nga xamante ni mooy booy bi ñu mu tuddee sax ah. caatu bi la moo dugal ci caatu bi. waaw ah, làmb moo moo ci dugal rek. mais biñ la koy biñ la koy proposer say mbokk wala say jigéen ñaare newuñ la est-ce que doo doo xool beneen yoon comme que gëjoon ngaa bëri ak yooyu. non loolu lu ci dara làmb la rek. ñu ngi fi pour làmb bu ñu làmb boosal dañuy bëre. Hmm. naka nga bëgg ak moom parce que bi ñu bi ñu suma juumul bi arbitre sifflé daanaka la fa am yëpp yaa ko def. waaw ñoo ko defandoo. yéen a ko defandoo ñoo ko defandoo. naka ngeen bëggee. waaw loolu mooy loolu dara ñu ci yàgg. waaw parce que xam nga làmb la bëri na. Oh, mais Ibou nag Ibou nag Ibou nag yàlla may na ma dam maa ngi koy waaw ne ko làmba ngi ci kanamam na góorgóorlu. def mais mais mais ni nga bëggee ak moom ak fi nga koy yegg dafa sooy trop. waaw làmb la rek suñu borom àndoon ak man rek mais Ibou na nga bëgg di nax gars yi wala nu mu demee noonu parce que boo ñëwee nii timit gaay yi di la xool di la ñeme ak xam nga euh, dayo bi rëyul. wax naa la man nii laa mel. mais ah, ne mais bandi géew nga laa wax. waaw. su ma loolu. doon na nekk di nax gars fëgg la. <laughs> yëg teel micro bi tuuti <laughs> kuy dof bi man wala yow c'est <laughs> que dama la namoon na xam nga des fois damay toog fii euh, ma andiwaat sa tuus sa tuus moom leneen la léegi rek dama ko noonu jàpp mais damaa xam ne xam nga yenn mbëy booy yi tam ñuy jéem a siisu. yëkkati micro bi. kontaan tuus. moom de doo seen moom man xam naa loolu. li mm, sëñ Bamba ñoom ñëpp de. Ah, <laughs> mais tuus gi lan la dégg bi. dégg-dégg yàlla koy def si nit rek moom Baye Fall moom boo déggul da ngay génn si daayira bi. ndax Seera Faal moo yaayoo dégg. Mhm. Eh. mais tuus bi dafa neex a neex a neex a neex. keroog dama kontaan. yow xale rek ambiance bi laay. topp ambiance bi. waaw. Hmm. mais keroog bi nga bëgg euh, Fils de Lirou ngeen bëre ci biir ba yàlla dogal mu am ndam sa kaw ngeen bëre nag looy mais keroog da siisu. dama agressif. bàyyi naa yooyu yëpp. da nga mais da ko bàyyi. bàyyi naa agressivité. moo ma xañ li ma bëggoon. maanaam da nga ci biir làmb ji. kon bokk na ci li la gën a ñàkk loolu. bilaay xëy na buumi xëy na CNG ñëw ba si biir géew bi war a calmé waat mooy loolu. ah mais loolu mu la mënee dal yow tamit nag. agressif rek. Hmm. waaw. lan nga ci jàngee. jàngat naa si lu bari ndax moom ay ndaw lañ defaguñ dara si làmb. Hmm. yàlla xam na ko. buñ yaakaar dañ fay def dara ñu ngi nax suñu bopp. ay ndaw lañ di door a tàmbale ginnaaw ba loolu bu ñu na dañ koy sante sunu borom xam ne kat lii moo ñu tax a xañ lii mm-hmm. yee bu beneenee dañ def lu tuuba loolu duñu dal daan nañ bëri daan sax doon def ay faay mais booy bëri di daan booy def ay faay doo gis faay yi mm-hmm. boo demee ba daanu nag ngay door a xam ne yow lii ah lii baaxul si yow te bokkul si mm-hmm. jàngal nañu lu bëri lii su kanam lii suñu kanam dëkk yaa ñu ngi koy xaar ak ndimbal suñu borom dina am changement bu metti bu bari bu baax. bu metti waaw. xam nga booy bi toog. booy bi xam naa ko. booy hmm. na combat bu neex. bu daan booy bu saf. bilaay. Hmm. seetaan nga ko seetaan naa ko YouTube bi. Ibu xam nga kiy toog. xam naa ko waaw. Hmm. foo ko xamee ci mën feccam wala mën ambiance am wala ci agressivité am lañuy wax de. xam naa ko xamul làmb nii rek. Hmm. mais yéen ñaar euh, dama gis promoteur yu ci bari euh, ñuy dox ci komba bi. Ibou Afia fëggalu bu ngor Ibou Afia fëggalu bu ngor lan mooy seen problème yéen ñaar. Ah, man moom amoo problème adversaire. amoo problème adversaire. mais bi nga daan ak léegi promoteur yaa ngi lay contacter lu tax jëlu ko daa am ci ñu ma topp seen ginnaaw rek luñ ma wax rek loolu laa def. Hmm. Hmm. sa diggante kii bi ñu ko proposé loo wax. déggoo li ma la wax. Oh, manager hmm. ñun bu doon ñëwtal suñu bopp combat kon du jaroon ñu am ñu am manager. yaa dégg mais nag des fois Ibou des nga gis combat bu la arrangé nga nga nga nga waxtaan ba noppi. wala nga waxaale bu juboo ne demal ci manager bi loolu gis nañ ko fi mbëri di ko fi def. mbër yàgg na gis combat combat bu ko arrangé mu bëgg ko mën a jot. daf fekk ñëwuñ ci moom. bëri na fi. waaw ma ne daa fekk ñëwuñ ci moom. nga bëgg a bëri nit ki su bëggul bëri yow bëri na fi. man gis naa fi ay boo yoo xamante ne dañuy dox seen combat kenn ki daw. waaw ah, loolu ñoom la rek mais man moom ku ma làmb booleel. Mhm. sama manager nangu ñi may àndal nangu damay jël. mais woo nañ la wax la sa diggante ak fëggalu bu nga. waaw wax nañ ma ko. Hmm. Mhm. combat bi mu tàggee. damaa ménageur lu mu bëggul rek bëgguma kon yaa na googu bëgg naa. kon yaa na googu déggoo mhm. lu mu bëgg bëgg naa lu mu bëggul bëgguma. Ibou nag yow nag mënoo mënoo ñëw daan daan caatu bi xaw a ku kuñ la wax nga naan ay damay bëgg ak ménageur bi laay déglu tamit nag Ibou. loolu lu cadre fuuy xam nga ba léegi néew ma la diw laa soxla. mais danga ne da ne boo yi la bëgg bëri nañ te mënoo ko am combat. non waxuma loolu de dama ne mbër yaa gën bëgg a bëri nit ki. te du bëri moom. waaw waaw soo ko déggee maanaam am na ñoo xam ne bëgg naa bëre ak ñoom mais ñoom bëgguñu bëre ak man léegi ñu bëgg a bëre ak yow lu tax nangoo bëre ak ñoom li ma la wax xanaa dégg naa bu baax yow ñi nga bëgg nangu ñoo bëre ak yow mais pourquoi pas ñu la bëgg nangoo bëre ak ñoom des na sama ménagère bu nangoo ma bëre ak ñu topp sama ginnaaw kuñ ma ne kii la dam may bëre fëgg la woo nañ la wax la ne la yaa Ibou Afia ajal micro bi pour mu gàtt rek man sama combat góora soog saa du tagee si man guy gërëy gi. sa combat xalaatuma loolu pour ñu may jox sama moroom may ne fii di xalaatax yooyu noonu. su ma defee yaay dóor ma barki Serigne Fallou Mbaye. kon sa diggante kii combat bi tegewul ci yow. non non xalaatuma loolu combat dina tagee si man yow mos nga dégg ñu ne fëgg la ñu ngi koy doxal combat tag na si moom. mais nag mais nag boobu saf na de. boo ma fekkee kafe ga woo ma téléphone dem naa naan wéef ma xaalis bi bàyyi faari naan café nga fekk ma géej ma ne la wéef ma ko gars yi jënd si jën ah nu mu mënta mel barki maam Serapal. mais pare nga pour jëflanteeg bi ku dul moom pare naa pour jëflanteeg moom. non waxuma ku dul moom. dem na la moom moo fi toog booy bi laa wax moom moo fi mu may dégg bu baax. waaw kii hmm. amul lenn lu ma doy. amul amul lenn lu ma doy. barki borom Touba. doy ma dara booy bi mu may dégg bu baax doy ma dara te amaana nag xama làmb waaw am na loo xam ne bu la arrangé wul tamit doo ko jël de. nañu waxante dëgg wax yow arrangé woo ko moom dama ko arrangé lii booy bi ma waxoon waxoon mag ñi rek yàmbale si biir tuba dama soxor de dama agressif dama soxor dama agressif mooy nooxe de. kii de li ngay wax nii sax yëg ko. waaw du ko jéem a dégg parce que bu ko déggee da koy sonal. bu déggee da koy sonal. waa ji moom jéem a dox sama dama fi ñëwul pour signature. non signature ñu xam nga xam nga tey. xam nga tey lii moo koy jaay xam nga tey bu fekkee tamit da nga jël avance wala boog nga toog su am na nu muy demee sax da leen fàtte mais xam nga des fois am na ñoo xam te laa gis mais nga feeñ waxtaan ak ñoom xam nga wax ci làmb loo tamit dafa baax ci làmb Ibu. waaw ah, maa ngi ci làmb ci laay wax mais man dama fi ñëw pour signature man yaa ma fi indi te ci ci li nga may wax ci loolu laa lay tontu. mais dama dama am ménager. Mhm. yaa mhm. suñu paree pour ne ma jëlal diw damay jël man lu may sax bàyyi xel. yaa ngi dégg. Mhm. voilà nice. mais dama gis kii dala ñeme ndax li ñuy dox seen combat mu ne dafa tagee ci yow. dama gis ne dala ñeme te bë dafa mel ni dafa mel ni bëgg naa jëflante ak yow. loolu moom la rek loolu moom la rek. <laughs> lii kenn mësu koo gis. <laughs> ah. waaw yéen lay boulever nii rek. non man man man man man Ibou dama koo fan parce que Ibou dafa ñëw aj gardam xam nga. waaye taxawaayu jéem a wàññi déggoo non du wàññi boppam lay wàññi. taxawaay bi muy taxawaay nii. Mm-hmm. yow xam nga ne kii melul nii. mais man man looloo ma gaynde gu dar gi boo jàkkaarloo moom doo yuuxu. ngar gu dar gi boo jàkkaarloo moom doo yuuxu doo ngar. non kii moom man xam naa ne amul lu muy ragal ci yow. moom loolu moom duma ko du ma ko. laam laam mais Ouzin yow micro ak caméra gars yi topp la ngay wax mais biir géew ba li fa am buñ la ko nga ne déedéet de. kon xam na li fa nekk. biir géew ba li fa am nee naa la buñ la ko expliqué nga ne déedéet barki Serigne Cheikh Fall borom digal waaw ah, biir géew densité la de. yow léegi yow ñan nga bëgg. te nangu ñu bëgg ak yow. man. maa ngi ci làmb damaa ménager. non Ibou nag Ibou nag non déglu li may wax ni mun ma ko dégg parce que yow. faa nga dégg ko. non lu tax ma koy dégg parce que yow yow non dafa ndànk yow da nga ne dafa ñoo bëgg nangu ñoo bëri ak yow gis naa ay booy man mën naa lima 3 ba 4 ñoo xamante ni nii pare nañu pour bëri ak yow wala ñenn ñu woo na leen sa diggante yow ak ñoom man leer na mën a jot nga ci mais nanguloo mais yow ñi nga bëgg laa bëgg a xam ñan lañu. man déggoo di ma la man maa ngi fi ci pour làmb man du ma tëggu benn mbër mos nga dégg ma toog naa jox leen ma diw. non parce que li ngay feeñ bàyyiwul moo tax. waaw noonu la demee nag parce que comme sànq moom laa lay wax man noonu laa man ci làmb laa nekk. ku ma ma ba da nga war da nga war yëngu ibu. non ay làmb ak toog fii du yëngoo du benn làmb làmb la fii jotaay la. waaw léegi dama laaj ñan nga ñan ñoo nekk sa xel nga bëgg a jëflante ak ñoom man daal maa ngi déglu sama ménagère. ku sa <laughs> am na fi mbéy mën a wax naa ko da ngaa soof mais tey gis naa kooku gën a soof tey tey non tey gis naa kooku gën a soof wala Ibou yow mel ni xanaa ñu ne ci bureau yi sax duñ def nii yow ci làmb nga nekk si mu gem takk say jaaj yi di dóorante. nga ñëw fi nga ne da nga timide di wax gars yi sax bu la seetaan erreur da leen di jàpp. nañu ree man nii laa mel nii laa mel. wala mbay fi toog nii moom ñoo may jéem a napp di ñëw. non question napp nii laa yow doo dégg lim la. ñoom maagandoo ñoom. génn gu dar gi ku jàkkaarloog moom doo ŋar. barki Serigne Cheikh Fall. man lu leer laa ama neneen ñu fekk la sa koñ xam nga otes yi wër la loolu nice mooy leen la wax rek ma ne la kuñ fekk sa koñ nga solol sa gaay yi otes kuñ solol sa t mu leer na t-shirt bi yaas ne bu la neexee boo toogee lu la neexu waxal mais génn ak génn ñu jàkkaarloo non non. mais yow fi mu toll nii budul budul budul Ibou Afia. waaye boo yaa fi lambañ suñu kanam ay bekaayeex ñoom ñëpp ñu ngi fi. bekaayeex bi daan maam Seera Fall ñëpp a ngi fi lamba la ñu ay xare lañ luñ fi def dara. voilà. kon làmb la dañoo war a jëflante nice. Bécaye comme daan Nokia ñoom ñëpp. diis. tey nga tey nga lu diis dafay am sa diggante yow eh. dama gis ne waaw. barki Serigne Cheikh Fall borom digal lu diis amu fi. booy yi ngay dégg ay tapet lañ biir géew nee naa yombul yoral micro caméra rek mais biir géew bés boo ko essayé nga xam ne yombul yombul. gaynde pire moo fay doxal. mais fi mu toll nii gannaaw di dox di nangu say cumbukaay si par force sa sengoor nangu par force doo kalaame arbitre doo kalaame CNG. sa combat yaa kii bu taxawoon di nga def noonu. déggoon la man dama cee am dama cee am dama dama gis ñoo xam te dañoo pare fi mu toll nii. réew di xam nga Abou Niasse. waaw. gis nga ko ñuule bi. waaw voilà baaxul. borom pento laa bële dof bi. abu maa ko nuyu. kii moom ay ay yenn yi sax. Ah. moo tax man làmb sax defuma si benn game. bari sëriñ Ba tey dañoo pare pour jël seen xaalis moom mii xam naa ne li ma koy wax xam na ko dama gis dañoo pare jël xaalis ci ci bi mais combat bi man loolu mooy mooy mooy li ma xaw a métti looloo ma woo leen. promoteur woo na ma ne maa lay dugalal xaalis xam naa ne dinaa d'accord ak booy bi ma ne barki maam Serap Fall doo d'accord moom. mu ma xaw ma nag daal di ngeen d'accord de mais dina yàgg mu ne ma dama lay jox nga téye parce que man li may bañ mooy bëgguma ku ma yeb lekk xaalisu jàmbur ba pare ñu naan combat bi demewul neex nee la demee ma ne ko teel sa xaalis ba nga wax moom ba mu d'accord mais xam naa ne pour nga dem fëgg buntu kër jàmbur ne leen avance fëgg la reeree leen ko dana laan noonu baax na bàyyi ñu fandee nii sama avance yombul jël de sama avance Ouzin yombul jël man balaa ngay jot Pape Diagne boo ma woowee ma la bëgg naa balaa lay ñaan ko la giñ seex Ibou doo xam naa la bëgg a laaj d'accord ah? yow da ma indi fii pour dëggal ma combat wala ma invité pour ñu waxtaan dama bëgg ñu waxtaan mais dama bëgg sa combat taxawaale déggoo li man su ma amee lu may xel ñaar ma dellu sama atelier dem liggéey sama atelier bi non xam naa ne doo man xam naa loolu mais dama bëgg nga jël ma avance booy bi man du man maay kii jël avance waa léegi neel pare naa pour bëre ak moom moo ko wax. loolu da du ko wax du génn si gémmiñam loolu xalaatu ko. du ko wax xalaatu loolu. du ma am ménagère. am ñu topp sa émission bi ngay tas si boppam parce que xam nga da koy tas. parce que wiiri wiiri jaari ndaari fee xam nga tubaab bi nu mu ko waxee autour du pot nan la. on on tourne le tour du pot. on tourne le tour du pot xaw ma noonu. <laughs> waaw xam nga ni mu la. yow xam nga ba du làmba laajul ay. alhamdulilah mm, non non nay metti tojkaani pacal li ngam di yëy muy saf taj taj waaw <laughs> loolu la quoi mais pas pour toog di ñu xam nga ay ibaadu rahmaan yooyu non non fii dañ fi ñëw dañu invité mhm. xam nga fii du bërëbu làmb mhm. lu nice la sol ñëwul pour bëre mais gémmañ la yor mhm. dafa roo wax ñi dégg ko nit ki boo ko ñeme ñee da naan ñeme naa la buñ ma joxee sa combat ma jël ñu mais sama ménagère laay xaaraax sama ménagère laay déglu loolu yëpp tapet la man moo tax booy balde balde ba ma faaxa de Amadou balde male hmm. booy pikin boobu lu ñëw mu jël. kooku day teral ay waajuram loolu la gëm mais pas ñu lay joxe avance nga naan ay damay xaar lii ak damay xaar laa si xale bu ndaw yow nga war fekk sa morom dóor ko mbaj. noo kaa mu yuuxu nga nekk ay wo nañ rayante barki maam Serafal yëfu guerrier. Ibu ñëwal. Hmm? fan laa jëm. non fi nga toll laa bëgg nga continuer. man kii indi ma fi de man yaa ma fi indi. waa léegi kañ waxtaan ma yow man doo bëggoon ñu waxtaan ñu ñett. mais yow fi toll nii da ngaa limité. yow yow question ay limité yow dafa mel ni da nga ma indi fii pour tegal ma combat. bien sûr kaay ma la benn affaire nag de combat yi dafiy taxawee de. mais yow fan nga nekkoon xanaa doo seetaan Wassare Lamb. man du ma seetaan sax lamb lu bëri. lu tax. ndax genre yi moom may fàtt ay wax yu bëri yi man xaw ma loolu. loo xam jëflante mu jeex. yow xanaa xamoo ma yow gisoo ma bu baax. man loolu laa xam man nekkuma fii di tendance di wax ay wax ju bëri jàpp bëree daan dem ñibbi. jeex na loolu laa xam mais ay toog fii di wax ay man yoo dafa may sax sonal. barki alxuraan. léegi la nga ëpp looy seedaan. lan moo tax. la nga ëpp looy seedaan. non damay seetaan làmb sax mais man làmb wax la benn affaire tey nga xam ko. déedéet waxal. am na ñoo xam ne bu ma leen seedaanee nii sax bëri ñuy wax ju bëri sax ma romb man bëre rek laay seetaan xeex bëre su yàggee sax ma xool leneen man ay wax yu bari yii nii man noonu laa mel xaw ma ko mënuma ko. yow daal kon efficacité daal ngay dox. moom laa mën. am. ba léegi tamit. <laughs> mais léegi fi mu toll nii fi mu toll nii ñan ñooy sa adversaire ci làmb parce que nag booy bi nga daan defal ndànk booy bi nga daan musul daanu. caatu piol bi coow li bàyyi na ci moom mbooloo mi koy topp bàyyi na man nag wax dëgg yàlla bu fekkee dëgg rek moo neex bi ma gisee nga jël combat bi dama ne Ibou xamul xamul xamul mu jël wala boog xamul ci lan la dugg mais keroog ni nga bëree franchement wax dëgg yàlla dafa ma bett. loolu nga ci ay morom mooy li ma lay wax sànq. Mhm. kii bu toogee fii naan ma ay xale bu ndaw ak ay sama avance du yàqoo ci moom ak loolu ay wax yu yàqu la rek. da nga jàpp ne daal yow kasaw la. kii ah. tapet la Ousseyn nga naan kii daa ñeme ñu wax si man. kii du wax si man barki maam Seera Balla doo wax si man yow. nu nu ma ne ko Balla moom. ah Balla Balla xam nañ langage boobu Balla mais kii du wax si man barki Serigne Cheikh Fall borom digal. Eh, Ibou xaw yaa ma fi indi waaye waxal ak man waaye. waaw dama bëgg ñu waxtaan ñëwal da lépp moom moo tax nga pause. tapet nga ñetti micro fi ne. xalaatoo wax si man. dama xam kii amul lu wax ak moom. nga. Mm-hmm. yaa ngi man yow waxal. Mm-hmm. làmb bëri nañ ci ay adversaire ñun ñoo fi ëpp adversaire ci làmb mhm. suñuy naataango ñoo fi ëpp mais man du ma tëkku nit yàlla sàkk ku ma làmb booleel ma bëri yow ay toog jox leen ma diw ak diw ak def xaw ma ko ci làmb laa nekk licence dañ doon ma mhm. ku ma làmb booleel rek ma bëri du ma tëkku benn mbër fi mu toll nii gannaaw gannaaw gannaaw amuloo combat ñaata séance def saa yi nii damay dem salle rek ngoon ma dem géej bu ndax gu. non commencé. dox ma ngi bañ jeex. may ma loolu damay métier rek. ma ngi hmm. bu ko mbaa taxawee ngay laal saal géej musculation ak contact. waaw naas. Hmm. yow fi mu toll nii gannaaw combat taxawul comme que comme que comme que booy moom nee du du du du ak yow tey hmm. euh, fi mu toll nii wàllum entraînement yi. man tërëma ma de. ah guddi toll nii entraîné dëgg ne sunu borom. lu tax. entraînement ma. waaw dama ñëkk man Ouzin dama ñàkk xam naa ñàkk lébu yi la wax ñàkk. waaw xam nga ko. xam naa man dama ñàkk voilà entraînement ma. lu tax entraîné woon toog lu xullee rek. ma yeewoo dem géej toog foofu lekki jën. toog lu xullee rek. ngoon jot nga ñibbis. ngoon jot ma ñibbi sangu tëdd. mooy kon genre rek. ragal ragal ragal ragal ba kenn xamul lan dural mais kaa wax combat yow Ouzin xam nga ne yàgg sama lan demee combat ba léegi kaa wax mu ne la kaa doy moo tax entraînement yëpp man dama ko bàyyi maa noppal ko. mbaa ma nii nii nii ka ma nii nii nii daal ma sër dama ay dama fay tax yow waaye yow nam ma dara namu dara wóor na maam Serap Ibou boo amoon kàddu yu mujj looy wax. waaw ah, di sant yàlla bu baax du bëggee waa maintenant bi ma jógee di siyaar sama benn gars yi Babacar Cissé Espagne maa ngi koy bu baax. ak Ndiaga Ndiir Ndar ak seen waa kër maa ngi bëggee ñëpp di siyaar waa maintenant yëpp Colobane Gueule Tapée Fass waa Plateau waa Yarax maa ngi bëggee ñëpp aja ñëwal ba mën kàddu yu mujj. waaw santaat yàlla julliwaat si yonente bu baax tey ñaanal suñuy waajur ñu yàgg fi lool ak kullu waajur. Mhm. ñaanal Sénégal jàmm sax fi salaam sax fi xam nga lépp sax fi mais di fàttali suñu autorité yi ne Ngor rek kani euh, xeeru nga numéro un. Mhm. ak Albasir. suñu doom yooyu ñu ngi si oyo bi boobu ba léegi nañu gaa yi dimbali quoi te xam na ñoom dañoo bokk suñu xam nga mhm. ñu jàppale ñu ñun bu ñu doon ay mag wala suñuy loxo xaj tollu fenn fi ñun ñooñu dimbal nañ leen bañ génn ci jeel bi mais nañu dimbali rek te yàlla tax ñu dox ci wax ci lu ñu am jël parce que yàgg nañ fa sonn nañ fa metti na waa mm-hmm. yee ñu ngi ñaan ak autorités yi ku ci mel ni monsieur le maire Mama Gueye ak maire sortant bi Amadou Gueye Ati Antou Samba bépp autorité rek ñu ngi lay ñaan nga taxawal ñun ñooñu noonu. di santaat di gërëm Baye Fall yi ak Yaay Fall di sant Abu Ndiaye mii tey fàttali gars yi bisu tam xarit si kër si kër Serif Alwali ma koy jaale xaadir yëpp di ko jaale suñu mbokku Baye Fall yëpp ndax ku xamoon Serif Alwali xam ne Serif Alwali Alwali Baye Fall la di woo gars yi sikar si bés boobu noonu buñ paree dem kasoor fanaanal sikar di santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di la sant yow ak say caméraman yi wasalaam gis ngeen mbokk yi noonu lay demee ci jàmmaarloo tey nag jàmmaarloo bi euh, xam nga man bëgg muy xaw tàng di neex di yëngu mais Ibou Tay Ibou Tay dafa ma surpris dafa ñëw rek tey xam nga calme parce que xam naa ne booy lay bañ mu yàpp ko comme que da koy xaw a wàññiwaale dama koy xaw a comprendre daale di ko jaajëfal moom bu baax a baax di jaaxale di jaajëfal fëgala bu ngor di la wax nee ne mbokk yi am pour promoteurs yi nga xam te bëgg nañ combat bi nañu waxtaan ak ñoom a xëy na peut-être Euh, Ibou bu fi jógee dina waxtaan ak manager wala manager waxtaan ak moom làmb ji taxaw bëggoon naa nag ñu neexal ko ndax promoteur yi gën a sax bu fekkoon lii lañ teg sax ñu yokkaat tuuti booy jël gën a mën a euh, xool nu ñu def daal di jox dig daje beneen yoon ak yeneen dafa am loo fàtte. maam góor. <laughs> yow dañu ñëw woo fee def sa yi. <laughs> maam góor Mbacke bu sëñ Afia. dafa woote ay cant. kañ mbaa lu lan demee tam xarit. incha allah du de sekk di woo Baye Fall yëpp. Mhm. waaw di ñaanal nag suñu Gris Bordeaux. Mhm. xam nga combat bu metti. yàlla na ko yàlla suturaal. digganteem ak Balla Gaye. yàlla na ko yàlla may ndam bu set guy ci barke sëñ Afia Mbacke ñun Gris lañu.